bu ko kenn aaye saaga yi muy def joxoon nañ leen ci rendez-vous samdi tey bii ñu fas yéene yeggali keroog nag xamele nañ leen ak waa ji ci ban kuréel la bokk tey nag ñu fas yéene ñëw ci alxuraan ji nga xam ni borom bee ko wàcce jaarale ko ci ngën gi mbindeef yonent bi alayhi salaatu wasalaam la ma waxoon waa Charlie Hebdo rek laa leen di wax Charlie doog ñi nga àndal nee nañ arrêté yéen Moustapha Habibana moom la yàlla tànnati koo yaakaar kamu yaakaar mu ñëw yilif leen lu ngeen wax ci moom ba tey ñu koy gën di soppati sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñu ànd ceeg oustaz Baye Pène ci ay leeral ci alquranul karim waxoon naa ko keroog nag kenn ku ci nekk ci ñun am nga avocat ñii am nañu avocat am nañu médecin am nañu ay branlon seen dara du tak ci àddina tekki tax nag ñu jag ba ñëpp di leen xool kenn faalewu ko sëriñ Abdul Aziz Sy Dabakh waxoon na ko ñi nga xam ni teraanga ju ñu am ñu ngi ko jëlee ci daara jëlee ko ci alxuraan te waxtu wu nekk ñi ngi leen di diine ci seen wet ñu ni ci cell ne ci dëkk bii di woote ni kilifa nga te sax léeg-léeg ñu jaay la aw sant te seen alal ji caaxaankat yi lañ koy neexalee caga ji fecckat yi waykat yi ak ñi nekk ci bërëbu caaxaanukaay yi nañu gestu diine te bàyyi complexe gi nag waxtu wu ngeen déggee ni diine gaañati nañ ko offensé nañ ko ndeysaan yenn ci ay xale rek ngay dégg ñuy défendre diine ji seen doole sax bariwul waaye nekk ci dëkk bii doo tiitaroo lu dul di way saa maam te diina yàlla ji moom dara baax na dee leen continuer rek gis nga li ngeen di seq xale yi jigéen yi ñii ragal leen ñii ngeen menacé leen ñii sant wi tax ñu ragal bis bu ñu fippoo di ngeen xam ne di way sama maam ci diina lañ ko war a wane. léeg-léegi sax nga dégg ñu naan di way gardien de la constitution loolu aw xas la fii ku fi njiit ku nekk yow yaa war a nekk gardien wu diine yàlla ji. sama jarbaat lan la sëriñ Babacar ci waxoon. sama maam Babacar nee na du tiit ba fen gor du jaaxle ba sàcc gor du xam fakk du ñàkk ba ñànk gor du jàpp baay gor du soppeeku. jërëjëf ñu ànd ak suñu sponsor bi juste après pub bi ñu del si dalal oustaz Baye Pen.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 be jërëjëf oustaz Baye Pène bala ñëw nag ci leeral aaya yi nga xam ni mbokk mi nee na alxuraan daf ci doon saaga xanaa di nga ñu defal ab jàngat ci sensibiliser bi nga xam ni alqur'an daf koy def alqur'an mi ngi wax baad auzu billahi min alcheytaan rajim wa quulu linnaasi xusna maanaam na ngeen wax nit ñi lu rafet ndax alquran dina digle ne nañ wax nit ñi lu rafet ba pare moom muy wax lu ñaaw déedéet loolu amut mu waxaat ci beneen aaya wala tasubbu alladina yadcuuna min duni illah fa yusubbu allaha adwan bi gayri ilmin tekkil ñu ko yàlla mu ne bu leen di saaga bu leen di xas ñi nga xam ne dañuy jaamu leneen lu dul yàlla su ko defee ñoomit it ñuy saaga yàlla ngir fay wante ak yéen ci ñàkk xam ak noono kon gis nga yàlla ba mu tere jullit ñi ne bu leen saaga ñii ndax mën nañ cee jaaree ñoom it di fayu di saaga yàlla kon wane ne ni alquran du saaga moo ko tax a jóg te saagawut xëy na moom baat yi mu jëfandikoo dinañ ci ñëw après moom la comprendre lan la ci borom subhanahu wa firawna mi nga xam ni ëppël gi mu mës a ëppal ci diine bu la neexee sax nga ni mës a am ndax ba yàllay wax ci moom jàll na ko baat firawna mi nga xam ne moo wax wax joo xam ne ba àdduna sosoo ba tey kenn mësu koo wax moom moo ni woon te moom moo ne ana rabbukumul aala muy tekki maay seen borom bu kawe bi firawna ba mu waxee loolu xam nga yàlla mënoon na ko mere wax ci wax ju rëy waaye dañu ñoom Muusa bu ngeen demee ci firawna فقولا له قولا لينا la'allahu yatadakkaru aw yaxsha maanaam yàlla mu ne su ngeen demee ci firawna ak waxam ju rëy ji li mu rëy yëpp yéen bu ngeen demee wax leen ko wax ju lewet wax ju nooy ngir mu fàttaliku ngir mu waaru ngir mu ragal yàlla alquran bi digle loolu kon bu amee nit bu taxaw ne dafay saaga kooku dafa ñàkk a comprendre lan mooy al luga arabiya ak lan mooy achatmu wa sabb loolu la xamul alquran bëgg misaal ci adduna bii ñu nekk am na ab kàccoor am na waajuy sàcc am na ab saay-saay am na ab ab njaalookat am na doom koo xam ne ni mu juddoo jaaduwut am na fenkat am na ku xelam manqué yii yépp dafa am ci biir àdduna léegi nag yii foog ñu ràññee ko pour ñu xool solution yi leen di wutal kon bu fekkee ne danga gis ci ab tex ñuy tudd ab ay kàccoor di tudd ay sàcc di tudd ay nit yu njaaloo yooyu yëpp dañu bëgg a wax ne àdduna bi yii yëpp mi ngi ci kon bu gisee yu mel noonu ci alquran da nga war a xool lan la taxawee baat bi lan la taxawee ci biir alquran pour nga xam dëgg-dëgg lan la ci borom subhaanahu jublu kon loolu du ab saaga du ab saaga du ab xas oustaz Baye Pène xaw ñoo wàccel niveau bi tuuti misaalal ñu ko ci àdduna gi ñu dund boo demee ci ab tribunal ñu accusé benn jigéen tuumaal ko ne day jaay boppam. tey buñ ko doon àtte atte bi lu li ñuy wax mooy ndaw sii de da doon jaay boppam loolu la ñuy wax ndax wax ji ñu wax ne ndaw sii da doon jaay boppam ci tribunal ba avocat yi di ko défendre nii di di ko jéema tilimal ndax loolu dafay tekki ne ab saaga la wala ab xas déedéet. maanaam dafa nekk foo xamante ni dafa laaj ab leeral moo tax ñu tuddee ko noonu. kon. kon boo gisee ay mel noonu tamit. bul ne yàlla dafay saaga. moo taxit moom mën naa saaga kon ñoom seen diine bokk na ci saaga saxaabatul kiram asaxba rasulillah inni qadimuhu muhibban lakum la wallahu yaklaw jërëjëf oustaz Mbaye Pène kon ñu ñëw ci aaya yi nga xam ni moom la mbokk mi waxoon ni alxuraan daf ko wax te juble ca saaga nga indil ñu ci ay leeral ñu ñëw ci yenn aaya yi nga xam ne waa ji wax na ko ne ay preuve la ci luy wane ni alquran dafay saaga bokk na ci aaya ya bokk na ci aaya yooyu borom subhaanahu dafa wax ne fa qulnaa lahum kuunu qiradatan qaashiin nee yàlla dafa tudd fii baatu kirada mooy ay golo euh, fii mu ngi nettali ñi nga xam ne dafa leen tere woon napp samedi ñu nappi mu soppi leen ay golo lii ab xew-xew la boo xam ne dafa xewoon borom subhaanahu benn histoire bu amoon mu koy nettali jullit ñi ngir bañ ñu def ñi leen jiitu woon lañ defoon mu leen di jural ab alak mu leen di jural ñu leen di soppi ba tudd gaa yi fa ñu mujj loolu ab saaga waaye ab yeela ak orienté nit ñi jox leen ay orientation pour bañ ñu jaar foofu. ba tey ci aaya beneen bi nee na tamit taaxut wa jaala minhum alqiradata walxanaazir wa abada taaxut maanaam nee na alquran bi day wax boo déggee ci ay waxam nee na seen alquran bi nga xam ne day wax nit ñi ay golo di wax nit ñi ay mbaam yàlla waxu fi benn golo wala mbaam dafay joxe ay exemple yu bari walla muy nettali ay histoire yi fi jaaroon di leeral ne ay nit daal saa yu ñu melee nii yàlla mere na leen ndax dafa leen di ndurooleek ñi nga xamante ni mooy bàyyi ma ñi nga xamante ni amuñu xel naam balhum adal ñii de comme ay bàyyima loolu tekkul ab saaga waaye nettali jullit ni pour ñu mën a xam fi ñuy teg seen tànk ba tey ci aaya ya beneen bii bokk na ci aaya yooyu innamal mushrikuuna najisun yàlla wax ci lan ala mu ne bokkaalekatu yàlla yi ay sobe lañu ay sobe lañu loolu tekkiwul ab xas wala ab saaga comme ni ko waa ji waxee bal dafa am ci biir diine ji li ñuy wax ahkaam fiqhiya ay atte yoo xam ne waat atte fiq la jullit bi ni mu war a jullee ni mu war a jàppee ni mu war a joxee adaka ni mu war a wooree am ay charte yoo xam ne ci la war a tënku ngir bañ koo def loolu la yàlla di nettali ci alquran dafa am yoo xamante ni ñooy leeral attey fiq yi attey fiq yi yàlla ne mushrikuun yi ay sobe lañu léegi nag foofu nga war cee génne ay atte fiq yu baree baree baree baree baree kon loolu fiq la concerné te fiq te fiq dafa war a leer ci boppu jullit bi leer bu wér ba tey ci aaya am na fu mu wax wa taamu alladina uutul kitaab xillun lakum maanaam ña nga xam ne dama leen a jox téere muy yahuudi ak nasaraan yi seen ñam yi dagan na pour yéen mooy yi nga xam ne yàlla tudd na ko mu dagan kon yooyu ay àtte ci wàllu fiq kon foog borom bi tudd ko mu leeru kon bu fekkee da nga jël aaya yooyu nag bëgg koo tekkee ab saaga ab xas yow sag dégg moo gàtt walla fa nga bokk ci seeni cosaan mooy xas ak saaga ak weddi ne alquraan bii wérul parce ñoom am nañ ay alquraan yu wuteeg alquraan bii ñuy déglu ba tey ci aaya beneen aaya bi mu gën a insisté nag mooy fi yàlla wax ne utillim ba'da zalika zanim maanaam nee na xoolal ab nit bu baax yàlla naan doomu njaaloo la te walid ibnul muxeerata dafa xas yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba yonent bi di woote bëgg a orienté société bi walid daf ko xas ne kii ab dof la ab njabarkat la yàlla ne déedéet liy wax ci yonent bi amut ab société bu bëggee baax day topp ku baax waaye du topp koo xam ne giñkat la du topp koo xam ne fenkat la du topp koo xam ne loolu yàlla wax utulim baada zalika zanim muy tekki lan mooy dafa woote wooni ci askan wii la bokk ba bëgg a xañ yonent bi droit am ci woo nit ñi ci lu baax te fekk moom bokkul ci askan woowu mooy utulim baada zalika zanim Oustaz kon saagawul kon saagawul xastewul kon bu nee alquran dafa bëri xaste ak waa ak saaga loolu ñàkk xam la ak ñàkk gëstu lan mooy Qur'an ak bokk ci kuréel boo xam ne seeni pas-pas dañ koo gëm ba pare door a dellu di ko wutal ay lay loolu mooy indi problème bu rëy ci chia nan nga waxoon ni noonu lañ leen di woowee qawmun isa urifu turiku maanaam ay nit lan yoo xam ne ku leen xam baleen jërëjëf oustaz euh, Suayb bi ñu ngi lay jëfal bu baax euh, di jégalu ci guddal bi yàlla na yàlla defar say mbir amin ñu bokk ko yàlla na yàlla taxaw la sàmm la barkeel jub amin yaa rabbal suñu doom yooyu nga xam ne génn nañ réew mi jàngi yeneen jàng ba ñibbisi am dégg ni bees yàlla na yàlla dégg loo leen dëgg-dëgg société bi ñuy dund ba li ñuy wax mu dëpp ak moom hada wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala jërëjëf oustaz Baye Penn jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci ànd geeg ñun di la jéggalu bu baax ci temps bi ñu la jëlal lii la leen GCB indiloon tey GCB ak Souhaïbou di gërëm Baye Assane Mesere di leen jox dig daje ci beneen waxtaan